u mbokku internet SeneNews TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax euh, ñu ngi waxtaan ak ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñooy borom kër yi maanaam kilifay ndax euh, seen wa kàddu mat na bàyyi xel trop ci li nga xam ne moom mooy askan bi te da di ñi nga xam ne nag yàgg nañu ci société bi te. xam nañu bu baax a baax lu war a mën a nekk ci li nga xam ne nag euh, moom mooy euh, li ñu mën a def pour mën a génn ci yenn jafe-jafe surtout ak euh, Dakar bi nga xam ne nag ñu bëri dañuy wax ni dëkku taa la dëkku taa nag loolu leen di gën a remarqué ñu ne ñëppay génn dem xëy na ay fee yi nga xam ne nag fan yi ñu ngi koy gis wala at yi mooy ay gune yu ndaw yi nga xam ne nag dañ leen di fekk ñu faatu ci biir ay oto la plupart day doon ay oto yi nga xam ne nag ay oto yu paan la wala oto yu sonn yu am problème la ñu gaaree leen ci koñu euh, ci koñ bi donc démb nag fi nga xam ne moom mooy caaro yi moo tax ñu def euh, li nga xam ne moom mooy nañu ci oto ñetti xale yi nga xam ne 4 ans 5 ans ak 6 ans lañ am te ci li nga xam ne mooy parents yi ñu ne xale yi tàmm nañu di yóbbu ki nga xam ne nag moom mooy seen añ su ko defee nag moom bu añee ba pare dañuy doon euh, demaat foofu noonu di jëli bool bi moo tax ñu bëgg a sensibiliser li nga xam ne moom mooy parents yi par rapport ak responsabilité bi nga xam ne nag moom la leen yàlla dénk ci gune yi kilifa gi tur bi ak sant. Mamadou Diouf laa tudd. d'accord sëñ Diouf lan nga mun a wax ci li nga xam ne nag euh, moom mooy euh, jéey yi nga xam ne moom moo amoon caaro yi ak li nga xam ne moom mooy sensibilisation par rapport ak rôle parent yi. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp bon concernant li mu wax ni ci lu jëm si mbiru xale yi man pour man responsabilité partagée la parents yi am nañ responsabilité mais.

Quant à concernant les parents, les parents aussi, qui sont comme papa, ils ont été élevés, ils ont été élevés, ils ont été élevés, ils de été élevés, surtout période vacances, ils ont été élevés, ils ont été élevés, ils ont été élevés, ils ont été élevés. Vous avez 4 ans, 5 ans ou 6 ans, est-ce que maintenant, Yoni, vous savez que c'est un peu de temps Non, non, c'est un manque de responsabilité. surtout dëkk bu mel ni Dakar nga xam ne ku nekk a ngi fi booy yónni war nga mun a yónni koo xam ne dafa mature xam na fi muy jëm ak la muy doxi mais nga jël yónni koo xamante ne mun nga ko yónni bu gisee événement boo xam ne bokkul ak la nga ko yónni woon sax mu dem topp loolu bàyyi la nga ko yónni loolu manque de considération la loolu si par rôle parent la faute parent la. yi xam ne fekk nañ leen caaroy ci biir euh, li nga xam ne nag moom mooy oto bu yàqu ak oto yi nga xam ne ñoom ñooy gaareew ci pavé yi. waaw dafa am loo xam ne oto bu màggatee dañ ko war a jël ñu yóbbu ko rawale ko ñu dem jox ko jën yi mu nekk si biir ndox bi. responsabilité partagée la mooy parents yi d'abord dafa am parents yi am euh, mooy euh, ñi yor wàllu mairie bi mooy oto yu yàqu yi et troisièmement mooy ñan maanaam ñan ñooy def ñaawteef soit que dañ leen fa dugal. soit que ñoo dugal seen bopp foofu mënuñoo ubbi mënuñoo tijji ba génn. ndax nit moo leen fa dugal wala ñoo fa dugal seen bopp daal di faatu waaye lan nga mun a sànni ci kaddu par rapport ak li nga xam ne mooy oto yàqu yi nekk ci koñ yeeg ak responsabilité parents yi. waaw loolu moom responsable chef de quartier yi la ak yooyu noonu ndaxte oto bu fekkee dafa taxaw lu yàgg tamit boroom moom nekk fa kenn nekk fa war nañoo xool ndaxam oto bi lan moo ko gaare fii quoi ñu jël ko yóbbu ko fourrière wala ñu ut fuñ. ngay wax parents yi. gouvernement bi waaye ki nga xam ne tam moom mooy chef de quartier bi wala ñi nga xam ne ñoo nekk ci mairie bi par rapport ak oto yi yàqu yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci dëkk bi. Ah, waaw responsabilité moom partagé la waaw parent yi nag ñoo ci ëpp responsabilité. ndax yóbbu ko mise en fourrière waaw oto yi nekk si baar yi dañoo bëri comprendre nga fii parcelle amoon na fii unité 13 amoon na fii ba xale yi ñàkk fi seen bakkan loolu fii la ma fekk waaw loolu fii la ma fekk man yàgg naa parcelle man élément 2008 la mairie parcelle. ba léegi maa ngi fii waaw dafa am loo xam ne il faut ñu sàmm suñu doom yi seeni waajur yi te seen doom yi ba tax na doo du oto du fay dugg waaw loolu si waajur yi la dañ ko commencé si waajur yi waaw ñu xool ne seen doom bu xëy dem fenn mu téeku si kër gi wala mu yóbbu ko daara mu dem jàng yi. buñ ko bàyyee foofu noonu affaire ni mën na fa dugg sa def affaire banditisme wala dara ak yooyu wóoru daal sama seen daal oto bu gaarul daal ñu ut fuñ ko teg bàyyi ko foofu quoi. ñi nga xam ne tam ñoom ñoo ñuy euh, ñooy ñëw ci dëkk bi maanaam léeg ñu wax ni kii de xàmmeewuñu ko fii nii lan nga yaakaar ni ci lañ war a mun a def ci li nga xam ne nag mooy euh, chef de quartier wala euh, ki nga xam ne moom mooy ki nekk ci mairie ba. waaw jox leen ay matukaa rek yokk leen doole pour ñu gën a superviser affaire yi pour ñu gën a contrôler affaire yi bu baax nit ki mën a nit ñi mën a nekk si sécurité ñu dund dund bu ñoŋ. waaw su ko defee lépp dina leer quoi. mooy d'abord parents yi parent bu nekk tey jii yaa yaa jur sa doom jur ko fi nga ko war a juree yar ko ba mu toll nu mu toll am nga ci plein droit parce que yaa moom sa doom man nga war nga kaa yónni te loolu te parent la bu la neexee nga yónni sa doom e, fu la neex waaye ban âge la am e, xale bu ndaw cinq ans xamul dara kooku e, yóbbu ko daara mu jàngi wala defal yóbbu ko yóbbu di ko di ko bàyyi ko sa kër e, di ko di ko di ko jàngal àddina. waaw loolu si waajur yi la dañ ko commencé si waajur yi waaw ñu xool ne seen doom bu xëy dem fenn mu teeku si kër gi wala mu yóbbu ko daara mu dem jàng yi loolu mooy norme waaw. li xam ne moom mooy gouvernement bi lan moo war a nekk seen responsabilité. waaw gouvernement bi seen responsabilité lenn kese la mooy oto yi nekk impasse yi yëpp nañ ko jël yóbbu ko fourrière loolu mooy yoon. opération doon na fi am nga xey di jàpp oto yu yàqu yeb charger def plateau yóbbu leen mise en fourrière ba xam public bi day am jàmm ak salaam loolu mooy yoon. itam est-ce que xalé yi am 4 ans ba 6 ans mat nañu yone ñuy dem yóbbu añ. non non loolu c'est interdit loolu c'est interdit papa ak yaay dañu am responsable ci dom dañu wara tey téye seen i am nga dom bu majeur nga jox ko mu dem war nga fay ciak ciak mu yobul koko ko moy norme ba dañuy saboter fu mel la doom yi jurni dal leen di jurni rek san leen ñi dem lool musuba la ci réew waaw doom dang nga koo éduqué téye ko responsabilité dan mom ba mu mat nga koi mu dem lool moy norme xalé lañu xalé dañ koy dañ koy surveiller dañ koy topoto dañ koy yar bu paré dañ koy baye xel jangal ko waaw ndax aduna bi fu mu tollu ni dafa bari ay rekh rekh aduna bi dafa jaxaso kon bo amé sa doom dang koy topoto baye ko xel surtout nga jangal ko nga bàyyi ko xel quoi ndax mom moy sa ressource xale nit mom manam sa njabot mom moy sa ressource maanaam bo len yaree toppatoo len jangal len tek len ci yoon rek buñu ñu dañ la jëriñ mais bo len sagane manam xeyna mën nañ jël beneen yoon bu leen yàlla dimbaliwul suturaal len ñu nek ci lu bax bon aduna mën na len soppi wala xam ñu dugg ci yenen business yo xamantene waruñ ci dugg ba ëlëk mu jurul len lenen kon donc para ñoo ci ëpp responsabilité ndax lépp ci baa ci baa âge bi lay tàmbale waaw lépp ci ba aas bi ndax xal rek c'est li nga waroon def ci moom ci départ bi defoo ko ci moom waaw ndax sa doom lu mu dee dee dee dee nga ko ay at yu bëri kon bu la jaaxalee rek am na loo rate ci moom waaw kon donc parent yi yaakaar naa ñoo ci ëpp responsabilité waaw. responsabilité waa mairie ba wala gouvernement bi ci oto yàqu yi nekk ci koñ yi lan la war a mun a nekk. waaw oto yu yàqu yu nekk ci koñ yi ñoom ñoom tamit am nañ ci responsabilité waa mairie bi am nañ ci responsabilité ndax mairie bi ñoom ñooy gérer koñ yi ñooy gérer quartier yeeg koñ avant gouvernement bi di ñëw donc bu ñu la dénkee mairie da nga war a da nga war da nga war a da nga war xool lépp loo xamante ne warul nekk ci mbedd yi ak yooyu noonu ngeen fexe ngeen kii ko li nga xamante ne day gàllankoor xale yeeg yooyu noonu ak ñu dul xale sax ngeen jéem a fexe toppatoo ko mais teg ko ci yoon nag ko ndax lépp waxtaan la rek adduna lépp waxtaan la nit ñi bo waxtane ñom rek ci xel rek manam di ngeen deggo mais affaire yi du doole du leneen waaw auto yu yàqu yi nga xamantene day nek bu fekkente ne oto yi amuñu fa njëriñ ñu jéem xol fuñu leen mëna yob ñu yob ko fofu mom moy gën quoi mo gën nga xamantene day nek ci koñi tamit di galankor ñen ñi waaw état bi tamit amna ci responsabilité waaw état bi tamit amna ci responsabilité ndax ñom ak mairie yi lu mairie di def ñom dañ koy yek ñoom dañu war a waxtaan lépp la lépp ci waxtaan la daal ci xel mu sel rek waaw parce que ñun ñoo bokk lépp bu ñu waxtaanee rek bañ a def affaire affaire de doole rek wala affaire de moomel rek mun nañu déggoo waaw ndax fi moom nit ñi soxoruñu bonuñu mais c'est que boo ñëwee boo ñëwee ci nit bu ko imposer dara rek nga imposer ko ak doole wala ak beneen façon rek mun na ngeen bañ a déggoo mais boo ñëwee nga imposer ko ci xel rek ngeen teg ko ci taabal waxtaanee ko rek mun ngeen déggoo ngeen xool. donc Kanta euh, nag yónni bi xale bu ndaw eh, pour man euh, c'est trop tôt dafa teel waroon nañ xaar au moins ba mu xaw a màgg mu xàmmee ràññee xam lu baax xam lu bon parce que xale buy dox si mbedd mi di gis oto xelam yëpp xale rêvam yëpp mooy dawal oto yéeg avion.

dina am ñoo xamante ne dinañ kontaan mais xoolal intérêt général bi yaa ngi dégg oto yi vraiment bëri na fi yi paan yi bëri na ci koñ yi te yooyu yëpp amul benn sens pour man koo xam ne yor nga sa oto dafa paan boo ko mënul réparer nga yóbbu ko fourrière ñu xool niñ ko def parce que loolu aussi parce que mën bu dul dara xale mën na tëju ci biir et mënul ubbi vitres yi serré amul amul aération mën na faa mën na faa mën na faa xëm te yooyu yëpp jéyee la yii laa la am li ma ci li ma ci li ma ci partagé di jéggalu ñëpp kàddu yi aussi vraiment du dara lu dul di ko naqarlu rek waaw kenn ku nekk aussi nga téye say doom xam ne dëkk bi jamono. parents itam du ñuy bàyyi xel di yónnee gune surtout ki nga xam ne nag euh, juróomi at la euh, ba euh, juróom benn ndax juróomi at la ñeenti at ak juróomi at juróom benn at est-ce que ñoom mat nañoo yónni. non ñooñu daa am heure boole leen di yónni mais am na heure boo xamante ne bi kon maanaam tey timis ak yenn heure yu guddi yi nga xamante ne bi mag sax day dox sans sécurité loolu waroo ko yónni xale quoi xale boobu soo ko yónni heure boobu lépp lu ko dal yow mag bi am nga si part de responsable quoi dafa am heure boo xamante ne xale da war a ak heure boo xam ne xale wala xale waru ko dox am na heure boo xam bu jotee mag nga war a yónni wala nga dem doxal say itte sa bopp mais yenn heure yi moom du xale moo war a dox ay soxla quoi ndax lu ko ca fekk tamit mooy loolu maire bi dañ ci war a jóg parents yi dañ ci war a jóg tamit ak waa koñ yi tamit waaw.